Wafarango. Wafarango. jaa ngeen jëf mbokk internet youtube Top Info TV Sénégal alaykum wa rahmatullah ñu ngi len di nuyu di len ziar ta di len dalal jamm sen émission bi la di invité du week-end suñu gan modi Abdoulaye Diaw ancien président national mouvement des élèves et étudiants franco-arabes du Sénégal mefas l'actuel président commission des sages bu boobule am mouvement doyen Diaw ganna bu ñu len nuyu lan moy liggéeyu commission bi nga jité ci bir mouvement bi. Euh, alaykum assalam wa rahmatullah sëñ Top. Je ngi la ziar bu groupe bi du ah, di kontaan ci invitation bi émission yi ngay def am na ah, man actuellement président de la commission des charges ancien président du mouvement MEFAS, de 2014 à 2018 donc question bi nga posé répondre ci dafay nekk lu ma sawar lool ndax bu ñu waxee commission des charges généralement dañ koy jàppee ne mooy ñi nga xamante ni ñoo âgé ñoo gën a nekk mag ci mouvement bi mais li nga xamante ni moom lañ ci gis ñun en tant que mouvement mooy expérience parce que soo nekkee ancien président du système euh, mouvement nga dellu encore récupérer nekk président de la commission des charges kon donc loolu ci expérience la wane foofu noonu. Nous avons rôle yu am solo yo ce sont des rôles capitaux des rôles capitaux euh, premièrement la commission des charges de que une commission de consultation une commission consultative c'est-à-dire le président et son gouvernement Si nous avons activité bi ñuy def programme il faut def consulter la commission des charges pour voir ce li nga xamante ne nous di mettre en œuvre commission des charges amna comme rôle encore une proposition c'est-à-dire commission bi le droit droit proposer ay affaires su un bon programme bonne vision que le ni le président am wala euh aussi nous mu ñeu proposer ko le président en question amna un rôle tamit orientation c'est-à-dire il oriente le président et son gouvernement la commission exécutive, c'est-à-dire que le président, le secrétaire et le trésorier. ñooñu nous ñi nga xamante ni wala nous mooy li nga xamante ni nous rôle commission des charges Mon nekk rôle boo rôle am parce que si nous waxee une euh, un mouvement la commission des charges ba nekk encore am rôle beneen rôle boo xam rôle de régularisation su amee benn dérapage dans le mouvement wala yenn ndaje yi wala yenn kii yi qui am benn dérapage la commission des charges mën nañ ko wër yenn ba nga xamante ne ko permettre mu jël parole daal di régulariser ba nga xamante lépp dina mu jaar yoon. kon loolu commission des charges su ma koy tënk wala su ma koy wax lu baril, la waaye si tënk rek. loola lépp kon a bokk ci liggéey bi nga xamante ni mouvement bi di MEEFAS mu ngi koy amal ñeel système bi di franco arabe moom sax la bëgg a laajte franco arabe ban taxawaay la am ci système éducatif bu Sénégal. Ah, jërëjëf euh, sëñ Top yaakaar naa question bi nga posé am na solo loolu moom itam macha allah le système éducatif franco arabe ban euh, rôle la am ci. éducation du Sénégal loolu yaakaar naa su ma ko tontu fokk ma ñëw ci historique de l'éducation au Sénégal parce que bu ñu xoolee ci jamono yi gannaaw suñu système éducatif nekkoon système bo xamna danaka yépp arab la woon bour yi fi nekkoon kilifa yi fi nekkoon seeni lettre seeni njàng ak njàngale yépp ci arab lañ ko doon bind à un moment donné avec l'arrivée des colons, la colonisation, le Sénégal changeait système éducatif avons système éducatif Nous avons système éducatif moderne wala colonial moi le français l'avons installé Nous avons jamono Nous di di l'an nous Sénégal français mo fi dox mais avec 95% des musulmans yi fi nek yeb danaka éducation française bi yitteelu leen ñoo léegi naka lañuy def ba rehausser taux d'escolarisation bi mu am ay ñoo xamanteni ni dañoo à l'extérieur et à l'intérieur ñu bëgg nak suñu taux d'escolarisation dal di yéeg ci kaw te bu dee français bi kese kese kese mooy li nga xamante ni moom moom la ëmb wala moom moo fi nekk du aussi wu parce que à l'époque boobu en 2002 taux bi mu ngi 71 pour cent mais ba ñu intégré le système franco-arabe ci jaune yii nii Kaffrine Kaolack Kolda euh, Djourbel, Louga. Saint-Louis de façon pour école franco-arabe 2002 2003 le public si la ñu gis ne taux de jéekoo ne 71 d'emba 95 pour kon donc gis élévation boo xamante ni bu am solo la ndaxte suñu réew dafa am màndarga yi parce que l'intégration de l'éducation de l'enseignement franc bilingue franco-arabe de faire une éducation religieuse vous savez. ne Sénégal dañ ko pour lool Et aussi nous nañ ba que nous avons dem ba 2015 ba ngay commencé à 100 pour cent donc taux de réussite bi aussi dafa augmenté par rapport à ça donc mu que vous savez mbir yu am solo mbir moo xamante ni tax na ñi nga xamante ni dañoo tiwoon seen doom ñu bañ a jàng ji dugal leen ci école yi mais aussi suñu éducation gën a am solo suñu yar gën a jubbanteku ñu gën a am éducation bu baax de base bu baax a baax ba pare nag ñu yàlla gën a maîtriser nag suñu diine ndaxte boo jàngee arab livre boo liir wala téere boo liir di ko mën a comprendre aussi dina permettre nga xam nak ngay jàmm sa borom sono dans la te da nga jàng diine da nga jàng hadith sira quran fiqhu tawhid lépp si biir bu ko doy koog matière scientifique yi nga xamante ni la école classique bi di jàng kon donc yaakaar naa ne loolu am solo la si dans un pays comme le sénégal qui compte 95 de musulmans

ndax dis na ndax am na avenir parce que da ngay dégg gaay di ko wax des fois mais xam nga am na yoo xamante ni sañ topp xel daf ko nanguwul yow nga doon doxee ñu nga doon ñenn benn kilo te ñu yenn la ñaari kilo nga dafa diis mais dafa war a diis deux kilo soo pan talawut ak benn kilo mais nag e, mbir lu mu diis diis wala bëgg-bëgg moom moo koy sottal te diisut sax parce que dangay jàng français jàng arabe parce que le fait que nga xam arabe ba mu baax xam français ba mu baax kooku rek dèjà am na avenir benn paa na sax dina wax naan système franco arabe daal mooy rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan yow yàlla yàlla nañu jox si àddina mbooleem jiw àllaa xel nga joxe fa mbooleem jiw mooy loolu mooy système franco arabe. tey jii boo génnee à l'extérieur nga maîtriser français maîtriser sa arabe maîtriser anglais mais ban problème ngi am kon donc amna avenir nekul question bu ñu poser wu. danaa la jox ay tegtal yu leer a man miy wax ak yow ni à l'instant enseignant la arabe te système franco la si amna ben am naa benn collègue boo xam enseignant français. Le système FRONCRAP si la génne si la jar ba jàll ñoo xam ingénieur en génie civil ñu nekk ingénieur en génie mécanique ñu nekk ingénieur en informatique kon donc système bi amna avenir bu baax a baax ñuy wax ne amuñ avenir je crois que ils n'ont rien compris du système ben système éducatif fi Sénégal ëppul avenir système FRONCRAP parce que la personne pas combiner en même temps le français l'anglais l'arabe ba paré di pas ñak avenir c'est impossible Ce qui bitim qui plus lak arabe ñu répondre la français ñu répondre la anglais ñu répondre la yow nga ko un système qui a 1000% 1000 d'avenir ñu des kay mooy état gëna a yoon yoon nga ni

kon su ko defee ñu wóot état rek le gouvernement les gouvernants ñu gën a jàpp système bi parce que bi système moom moo dëbboo ak Sénégal bi système moom la Sénégal soxla lii la kilifa yépp soxla woon lii la nga xamante ni moom la les ténors du pays moom lañ soxla woon kon donc nañ ci jàpp jàppee ko suñu rukk loxo rek mu daal di gën a am solo gën a baax jërëjëf suñ tam mbokk yi mu ngi noonu Abdoulaye Diaw la woon ancien président national du mouvement des élèves et étudiants franco-arabes du Sénégal MEEFAS l'actuel président commission des charges bu boobule mouvement ñu koy jaajëfal bu baax a baax yéen tamit euh, jaa ngeen jëf bépp laaj bi ngeen bëgg ku leen ko leeralal ci système bilet yi franco-arabe wala sax mouvement bilet yi MEEFAS mën ngeen ko bind ci seen i euh, commentaire wooy leen di ñu topp ci l'espoir de toutes les générations Top Info TV Sénégal way laa bi iznillah